bëree bëri lay bëree bëri te lay man amuma lu ragal si loolu chef de l'état ah man du ma ragal ndax ragaloo ma non yow ragal parce que yaa ma xam bu baax kon ñëwal ñëw naa li ci def mooy yaa ngi waajal bis foo toll ci bis depuis euh, un an ñu ngi préparé kon fu nekk nii préparation dañu continuer li ñoon def rek continuer ni ngeen doon def. waaw waaye yemoo ci war nga génn bitim réew dem bëre ji ni nga défendre couleur sénégalaise yi à travers euh, euh, le monde entier. Mhm. foo ci toll. waaw maa ngi ci donc comme euh, dama am combat bu mag ni nga ko waxee moo tax ma arrêté ko tuuti pour deux mois bu combat bi jeexee ma continuer mais trois combats la femme donc su ma paree ak sama combat Sénégal damay dem continuer waat du Sénégal comme nous ma ko daan defee. loo traditionnel bi 21e édition drapeau chef de l'État, état. mais son excellence Macky Sall. dañuy wax euh, football su club sous, su équipe nationale baaxee rek club yee bon. donc tey bu lamb dox Sénégal c'est rek simple moo kon vraiment ñu leen di encouragé di remercier aussi euh, euh Sène di ko encouragé le ko félicité di le président de la République. foo toll le sunu ministre du sport.

njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb